maître Aboukane Baro nga nekk ci avocat yi nga xam ne doon nañu layal Dieynabou Baldé tey tribunal délibéré na li nga xam ne moom moo doon lañ doon toppee sa client est-ce que mën nga dell si waat ci li nga xam ne mooy délibéré bi. waaw tribunal tey bi mu ñëwee dafa ne Dieynabou Baldé li ñu koy toppee ci wàllu extorsion de bi mooy jéem a jël xaalisu keneen nit ki loolu amul li am mooy vol bi sàcc bi ak euh, collecte illicite de données ak caractère euh, personnel. Euh, ci kaw loolu tribunal daan na ko 6 mois ak sursis cela veut dire que à partir d'aujourd'hui day génn kaso bi daal ñibbi këram ñu ngi si sant yàlla bu baax aussi di saluer décision tribunal bi parce que décision boo xamante ni sagesse la am ak euh, vraiment un sens élevé de la justice. bon le reste nag euh, ñu nekk avocat dañu xool vraiment ban suite la ñuy accordé procédure bi mais de toutes les façons léegi amatul benn intérêt d'autant plus que partie bi nee na laajul dara. et puis tribunal jox na ko acte de ce que effectivement laajul dara voilà. ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo ay prévenu muy Ali Baldé ak keneen ki ñoom it dañ leen bàyyi. wala waaw ñoom dañ leen bàyyi dañ relax relax purement et simplement euh, tribunal dafa jàpp ne ñooñu defuñu benn délit defuñu benn infraction ci kaw loolu la leen di tribunal bàyyee ah. en tant que avocat décision bi satisfaire na la. waaw maa koy rafetlu maa ngi koy rafetlu même si. Euh, tout est aussi bon matière de droit moom euh, les avis sont sont ñun bi ñu plaidé nee nañu clairement que ne ñu d'accord ñu ci vole bi euh, ak collecte illicite bi. de toutes les façons puisque ay avocats lañu ci benn collectif bon balaa ma ci wax dara damay concerté ko ak yenn avocats yi ñu xool ban suite euh, vraiment dañuy réserver procédure bi incha allah rabi ah. d'accord